Thank you. jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen site dakarmatin.com fas yéene ñëw nuñ koy defee ay bés bu nekk di leen dégtal li nga xam ne moo di seen chronique di wax ne jàngoro jooju ñuy wax coronavirus yàlla ñu ci yàlla musal bu baax a baax a baax a baax te tamit ñan fàggandiku ci jàngoro jooju waaye li ma leer ba leer ma tamit moo di xaw ma coronavirus dugg na Sénégal am déet wante coronavirus politique moom dugg na Sénégal ndax fan yii li dégg ci wax waxi dof jëm ci troisième mandat bi mooy firndeel na coronavirus politique moom dugg na ci ay nitu politique ñu baree baree baree baree bari ndax nag mbir yi day tàmbali jéggi dayoo bu ñuy wax ñuy wax ne non diversion la du diversion de du diversion de ñoo provoqué débat bi très pour xool nan la ko sénégalais yi di gisee te ñuy provoqué débat bi yépp coronavirus politique moo leen jàpp waaye Dakar Matin. yéen a ngi dégg noonu mu doon kokkali di wax ne imaam ñuy wax ak moom mu yëkkati loxo waaye moom am na lu mu waxoon tamit ba professeur Babacar Gueye tiré sonnette d'alarme bi di ñu artu di wax ne ba mu gëstoo bu baax a baax ni ñu bindee constitution bi ci article vingt sept am na loo xam ne leerul te prox ndollu la mën nañ fa jaar wut troisième mandat boobu président Macky Sall yëkkati ay kàddu ñu déglu ko. fan yii dégg naa ay coow mooy loo xam ne daf ma jaaxal sax ndax day mel ne lu xiinul rek xëy taw wax joo xam ni kenn xamul fu mu jógee ak lan moo ko tax jóg ndax réew mi. jàpp naa ni démocratie la buy dox 2016 man maa proposé askanu Sénégal révision constitutionnelle boo xam ne dama ni mbirum mandat yi dafa war a jeex dàq ñëpp jàpp ne réew mi kenn mënatu fi toog lu ëpp ñaari mandat dañ ko bind mu leer nañ nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs xanaa kay ku jàng tubaab boo ko firilee loolu war na xam ne indépendament indépendamment référendum mille 2016 wala loi 91 dañu ne mandat bi juróomi at la benn yoon lañ ko mën a renouveler muy donc beaucoup renouveler muy ñaari mandat ñu yokkat ci de toute façon kenn mënul nous ñaari mandat donc loolu constitution bi wax donc loolu lu man maa mandat ne bu ci yàlla 2019 2019, lay jeex ci coobare sénégalais bu ne liggéey bi ñu koy ci renouveler mandat 2019 su man ci. def lu ëpp ñaari mandat yu tout cas man de mbiru mandat Dakar Matin. mu ñëwaat décembre 2018 ñu avons jëm élection présidentielle 2019 xam nga il fallait que mu ay gage de bonne foi dalal xelu nit ñi. ne len bo len ma joxee ñaareelu mandat du ma sàkku ñetteel ndax ñettel dañ ko fi ayé ci bobu amna kaddu kàddu won ba tay ji ñu déglu ko mom mom c'est clair que constitution bi man maa ko bindul bi ñu defee mandat bi de 7 à 5 ans dama ne le mandat est de 5 ans renouvelable une fois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 te ça la constitution maa gouvernement bind maa ko proposé maa donc foofu lañ toll. Dakar Matin. waaye lu ñu jaaxal ba mu jotee ci le mandat bi. décembre 2019 gi, ñu posé ko même question bi. kaddu gi di layam layami kaddu gi di layam layami leerul ne duma tontu wi du tontu non. ñu déglu ko. du nekk oui du nekk non. waxtu wi daw laaj ngeen ma laaj bi lu jitu daw avant may dem campagne nit ñaa ngi koy teg wax la joo xam ne ak lu ma ci mën a tontu tey du fay wax ji parce que dafa am ñoo xam ne loolu dafa leen soxal te man dama jàpp ne dañ ma dénk ci kóolute mandat boo xam ne dama ko war a liggéey ànd ko ak ñi ma tànn ñu ñu may gunge ñu liggéey ko ngir askan wi li ñu fi wax yëpp tey ci courant bi ci gu yaram ci liggéeyu xale yi loolu moo ëpp solo nekk fii di wax waxu mandat bu yegteegul te am na suñu benn sëriñ sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma daan na wax nit ki loo weesu bu ci waxati loo nekk nekk ci rek tey liggéey lu ñëwagul nag maandu ca ndax mbiru yàlla xel bu tey sa moom ku sa xel tey rek dafa fekk yow sa bopp nga am problème ndax jox nañu ma mandat maa ngi ci dox tey jii su ma leen ne du ma nekk candidat est-ce que xam ngeen ne sama gouvernement ci boppam kenn dootul liggéey kenn dootul liggéey ñu wax koog bañ ko waxee ci yem ndax su boobaa comme président dootul fi nekk ku bëgg wala ku da nga wut même ñu bëggul sax dana ñëw démarché leen dootuñu liggéey ci liggéey bi ñu fi bàyyi juróomi at yi kon ban intérêt lay am ban intere lay am bu ma nee candidat laa coow li ne tëll marché yi gën a bëri coow li bëri kon wax ji dafa jotagul. Dakar Matin. loolu lan lañ ci mën a jàpp bi ci njëkk mooy wax ji leerul comme nu mu leeree woon laata muy am ñaareelu mandat beneen bi tamit de d'impuissance président Macky sàll won na nag kilifteefam ci kaw ñi nga xam ne mooy seen kilifa ci biir gouvernement des na parce que bu taxaw waxee ne su ma nee dootuma wut li nga xam ne moo di troisième mandat ministre yi duñ liggéey man dinaa nekk président de la république di jiite réewum Sénégal fal ministre sama coobare décret ña du ma wut beneen mandat mën a du liggéey ma dàq ko ci biti xanaa kon moom day dëggal ne président Youssoufou bu Nigérian moo ko gën a am fulla am fayda moom mi taxaw wutuma troisième mandat Je ne sais di manifester ne da ngay troisième mandat procureur bi japp len juger len est-ce que dañu deug instabilité feulé c'est Niger kon le président Macky Sall ne mom ji ak fayda ji ak li nga am ngir liggéeyloo ay nitam bés bu ne day troisième mandat rek day dañ waaw ñun lan lañu mën a jàppee kàddu président Macky Sall si suba si mu wax la lii ci ngoon si mu wax la lii li xale yi di wax rek kàddu gi kàddu rido la kenn du ci wéeru ku ci wéeru daanu rax ci dolli tamit nag kuy waxal yàlla te yàlla tax la may wax rek wan ak miin na sàgganu wax mu dañ miin nañ ko si ñoom wax mu dañ miin nañ ko si ñoom ba dootuñu safe léegi ñu dem seeti njabootam lan lañ doon wax ci mandat bi ki ñuy jiital kan la Ismaïla Madior Fall moo nekkoon ministre de la justice xale yi di ko dàkkantale tailleur constitutionnel Ismaïla major Fall ak benen alliéem amna luñu waxone ci Macky Sall ndax mën naa 3 troisième mandat am déet ndax mom bokku na ci ñi ko doon xelal ci walu yoon ci bindum constitution ak timit ci walu référendum bi Ismaïla li la daan wax. Vous savez, la constitution du Sénégal est très claire sur la question et ne laisse place à aucune interprétation. L'article 27 de la Constitution dit le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Je vais répéter la phrase. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Je vais répéter la phrase une troisième fois. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Est-ce qu'il y a place à interprétation On se pose la question qui est Macky Sall, président de la République en 2012 est-ce qu'il est présidents de redevenu président de la République en 2019 On dira oui, les mandats étant consécutifs, portant sur une seule personne, il ne peut plus être candidat. Et jii ku ko posé question mu en principe en principe à Moutillon, yoon Macky Sall président de la République du moom mooy dogal dañoo am sàrtu réew du loi mom, mom du loi loi ko fi teg loi ko fi teggi caution moteur, tëral nan la réew mi war kon en principe ñàkk en principe loolu du yoon ñu seeti Boun Abdallah moom moo xadd kaaba gi moom waaye xam nañ nu tax mu def ko ndaxte am na lu xew ba tax mu wax wax juree ji mu wax lii la bun waxoon ci mandat bi. yeneen yu fi xew ba ay Podor ainsi de ne bu ma toogee loolu doot mën a am coow li fi am ñu naan deuxième troisième mandat doonte troisième mandat xëy na booba dañ koo tudd wante deuxième mandat la woon ndax changé nañ fi constitution ci diggante bi moo tax moom mu campagne yi woon li conseil constitutionnel dak wax d'accord naa ci man damay def sama campagne mu ne coow lu mel noonu dootu fi am ndax dinañ def ci sartu réew mi ne kenn dootu fi mën a def lu ëpp ñaari mandat yu tegaloo waxuñu nag durée mandat ba bii sept la bii cinq bii cinq bii sept wante ku fi defati ñaari mandat dem sa moroom ñëw toog teg wàllab ci liggéey bi réew mi di continuer dox dem nañ ba ca biir sax mu ne ñu ne léegi deux mandats consécutifs président moom li mu waxoon mu ne mode d'élection daal dinaa ko verrouiller naa nag laa bëgg ndax jàpp naa ne nguur comme li ñuy wax le pouvoir absolu corrompt absolument nguur loo ci gën a yàgg gën a xëy na mën na nekk position naagu te yàlla bëggul loolu. wëlbati yokkaat ci lii. bu fi toogati ñaari mandat kese nga mën a def li fi xewoon nga xam ne da ngay xëy suba ne man damaa bëgg troisième mandat modifié.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 mandat bi yóbbu ko juróom-ñaar indi ko juróomi at te kenn dootu ko laal mi ngi ci biir donc amul troisième mandat amul dara ndaxte ca wàññi ba ñuy wàññi pour xam ndax ñaari mandat yi am na bii muy def nii ci la bokk donc loolu dama bëgg sénégalais yi dégg ko bu baax amul risque troisième mandat wàññi bi bii bokk na ci ñaareel ba muy diir mooy mag bu mujj donc loolu war nañ ko dégg bu baax amaana mën naa jàpp ne mimi Touré Touré femme de principe la l'autre gars fi nekk xërtal ko ni nas di nocci pour troisième mandat andu ci moo tax ngay dégg ñu koy tuumal lu ne amaana Seydou Gueye tamit dégg Abdallah catastrophe bi catastrophe bi da ngay est-ce que ñi daw yaram parce que am jabar am Dom, am ay xarit am ay am di jam am njabot ñu lay dégg tey nga wax lii suba nga wax safaan wa te du la wàññi dara ngay riigu ci sénégal di dox loo neexee mais dama ne mbay njaay moom duma fa toog di wax mbay rico duma fa toog di wax ci moom déedéet waaye yooyu yépp nag almaxtoom suñu maam ju baax ja préférir noonu bu yàgg bu yàgg yàgg yàgg yàgg ñu déglu ay kàddoom am na loo xam ne bu ko nit waxee nit ki normal la tudd waaw maa ngi koo waxtaan ak benn médecin mu mel na tudd na ma sax baat ñu di ko waxe schizophrénie ma ni ko kër bi luñ koy bindee mu ni ma CH feebar la buy def ci yow ñaari jëmm mooy tax yenn yi li ngay wax ci suba du bokk ak li ngay wax ci midi waaw c'est pathologique kenn mënu ci gis nga li muy wax nii schizophrénie feebar bu garaaw la te soo xoolee bu baax a baax ñi naagu ci nguur la ëpp ñuy dal ndax wala fi sax léebu nañ ko nee na baadolo bu amee rek ngay doog a xam jikkoom dëgg nag rawati nag bu yore lu ko jomb ngay xam di jikkoom dëgg waaye sunu maam ju baax ji almaktum rek waxoon nu jikko golo jikko golo ba mu bewee ñu déglu lam ñu waxoon la golo ga sikkewoon jigéen ji dañu golo ga dafa dem defi traite jaay ca ba xaalis bu dul jeex ñëw rek kenn mënul dëkk ak moom ci quartier bi ndax beew rek benn jigéen romb ko rek mu sànni ko junni junni jigéen ji ni ko ah, lii lan la mu ni ko boo demee marché jëndal ma fa dara mu ne ko ah lu ma lay jëndal mu ne ko lu yelloog man rek ah jigéen ji dem jëndal ko ngóongu xaj moo xam waaw ah ba noppi muur ko ci leket gi naka la ñëw romb ko rekk di dem mu ne ko ah du la yóbbante woon mu ne ko li nga may yóbbante day bala nga cee jot neexal ma mu topp ko rek ndeke jigéen ji dafa bëgg dem ba sori garab naka lañu dem ba fu garab amul jigéen ci yenni ko bagaan gi golo ubbi rek ubaat ni ko man dey waxuma jara digi waaye fik mako joxe ah ah waaye xanaa kuy jënd liit nga xam li nga bëgg waye tëxet tëxet tëxet tëxet ba jënd lu xamul para detal Dakar matin bu ñuy xelal président Macky Sall dañ koy wax na ko mu déggu kaddu yi nga xam Maulana Cheikh Ibrahima Niass bay moko waxon yu am solo la ci luy àndandoo xaritoo ci yàlla. xaritoo xaritoo ci yàlla. ñii siyaaraante ngir yàlla. ñii siyaaraante ngir yàlla. ñii dimbalante ngir yàlla. ñii dimbalante ngir yàlla. ba buñ dajeeg yàlla itam. ba buñ dajeeg yàlla itam. suñu xarit gi di wéy rek. suñu xarit gi di wéy rek. xaritoo ci yàlla rek mooy wéy. xaritoo ci yàlla rek mooy wéy. ñëpp ñu xaritoo ci dudul yàlla. ñëpp ñu xaritoo ci dudul yàlla. ku la sopp te xam ne yàlla taxut. ku la sopp te xam ne yàlla taxut. dana la bañ bu loola dañee. ku la soppala ngir yàlla. ku la soppala ngir yàlla. yàlla moom du daj mukk. yàlla moom du daj mukk. moo tax ñu soppante ngir yàlla. moo di jeexal nag comme président Macky Sall moo tudd ay oto. nañu jëm ci leeral lépp. fii président gëstul ba xam au conseil des collectivités territoriales ku leen jaay seeni auto? est-ce que du sa njaboot bul sës yow sax est-ce que du sa deret din ci dellu kuy jaay auto yi ak dul jaay auto institution yi nañ ci len len dig dajé sen benen chronique sen site dakar